lool wala nuyu si tey muy ku miin kër gi lool nga miin kanamam lool mu miin la lool kooku mooy kii nga toogal tey di président Arona Coumba Ndoffène Diouf président nag wax na ni mi ngi lay nuyu nuyu bi gën a kawe wax na ni mu ngi lay sargal waaye wax na ni mu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér te mu yàgg la fee fekk yow ak ñi ci salle bi ñëpp. Laye Mansour président nee na fii mu ñëw tey miin na ko lool miin na ko ci teraanga waaye miin na ko ci jëf ju rafet waaye miin na ko ndax gëm na ni kër baayam la te saa fi ñëwee mbégte ak bànneex rek la fiy fekk te moom it la fiy bàyyi te moom mooy li koy gunge nee na moo tax tey mu wax ni comme daa gont di def dox mbokk mu ne day ñëw fii tey nuyu la sargal la catagal la waaye tàllal la ay loxoom ngir nga ñaanal ko ndax daa dëgmal loo xam ni jàpp na ni sa ñaan ak sa conseil ak sa kaddu gu rafet mën na ci dara muy lan nee na moom kat candidat la élection yi ñu dëgmal muy présidentielle 2024 te nee na diirub ba mu ko jàppee ba tey nag mu ngi ciy dox mu ngi ciy wax mu ngi ciy def kemtu lay kattanam nee na moo tax tey jii mu ne na ñëw fi yow yëgal la ko waaye nuyuwaale la sakkuwaale ci yow ñaan di la wax ni foo xolam nekkoon ci yow ak xelam dara jugu ci te dara soppiku ci te dara du ci changé nee na baayam nga soppeem nga wëlëreem nga xaritam nga am di jàmmam nga moo tax nag mu ñëw fii tey joxe kàddu yu sell yooyu kàddu yu jub yooyu kàddu yu teraanga yooyu lépp lu ci dëng ñun ñii la waaye waxee na ko waxin wi gën a la wi gën a rafet wi gën a jub wi gën a foor tànka wi daal tey ci gàttal tànki dox mbokk la tànki doom ju ñëw ci baayam tànki soppe bu ñëw ci soppeem tànki nit ku ñëw tàllal baayam loxo ngir mu ñaanal ko ndax li ñu dëgmal ci kanam soxla na ci ñaan lool te sa ñaan sàkku na ko ci ndax mën na ci dara loolu moo doon kàddu yi ñu nañ ko tijjee di wax ni wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu maa ngi tub bu baax te jégalu lu dëng man la waaye lépp jub na tarafet jërëjëf El Hadj Mansour nee na lim ciy yokku nee na El mi toog daanaka moo leen gerte nee na ci ëttu boppam tamit la ñu nee ci ay waxam yu rafet ak yaram bu jub nee ci loolu rek la ñu si fi ñu si tey nee na bu demee ba am fitu jóg tey jii di laaj réew ci élection yi ñu dëkkmal nekk candidat 2024 nee na bokk na ci ñi nga xam ni ñoo ko ci may fit te ñoo ko dëgëral te ñoo ko taxaw ba tax mu am fit woowu nee na musul jóg mukk ci di wax ñun ñooy kan. musul jóg tamit di ci li te nee na jóg mukk ci baatub di leen yedd di leen ñaax waaye di leen xamal taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawoo réew mi saa su ne ak waxtu wu ne. fukki at def ci na fukki at ak benn yi nga xam ni def na ko ci cabinet. soo l'excellence président Macky Sall. muy taxawaay bu rafet lool bu ñëpp mën a seede ci digganteem ak président de la république monsieur Macky Sall. nee na amut lenn ci ump baayam bi toog di El Hadj Mansour Mbaye. nee na amul lenn lu mu mës a bëgg a def lenn lu mu mës a xalaat fas ko yéene yëkkati te ñëwul ci kër gi toog fii tàggu baayam bi toog di El Hadj lenn tamit na tamit amul lenn loo xam ne xibaar la buy tukkee ca kër ga kenn di ko yëg te du njëkk a topp ci noppu El Hadj Mansour Mbaye mii tam nee na keroog bi waajuróom wi nga xam ni mooy waajuróom wu jigéen génne àdduna yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana nee na El Hadj mii toog la mu jàppoon lépp da koo bàyyi keroog moo fa nekk ba dëyal waajuram mu jigéen dëj ba ba mu yegg te nee na noonu mu ko taxawoo moom président Arona Coumba Ndoffène mii taab El Hadj Mansour noonu la taxawee président de la république monsieur Macky Sall ak président yi ko jiitu tàmbale ko ca Senghor président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade waaye noonu la taxawoo Sénégal gi yëpp ak ëttu këru diine yëpp. ne nee na président Macky Sall nag def na waruwaayam def na fi fukki at ak ñaar liggéey ba xëy tàggoo war a dem lam fi tàmbali woon nag moom président Arona mi mu am yéene àggale ko ba Sénégal gépp xam ni tàmbali bi kat am na lu ko yeggale nee loolu rek mooy yéene moo tax mu ñëw fii tey sàkku si ñaan El Hadj Mansour sa doom sa soppe sa wëllëre président Arona nee na mi ngi lay gërëm ci dalal bi nga ko dalal ndax nee na biir na ko ni jot gi bariwul gan ñi mën nay bari yitte ji bari lool waaye teewul saa boo ko gisee bàyyi lépp loo jàpp toog wax moom ba keroog muy dem boo sañoon du fi gaaw a jóge nee na mi ngi lay delloo yëgalaat ni yëkkati na loxoom. di sakku nga ñaanal ko te gunge ko ci lenn rek moo koy teel laaj kàddu askanu senegal élection président 2024 ngir jiite réew mi àggale naal bi nga xam ni moom la président Macky Sall am te yow nga yéene ko réew mi. nee na mi ngi lay tàllal ay loxoom nga ñaanal ko waaye yemu ca. nee mi ngi lay jox noppam akum xelam ci xel mu rafet mi yàlla sédd yàlla na sax nee na lan nga ko ciy digal ak la nga ciy ak la xam ne mooy yoon wu jub wu jekk wu yaatu wa ko cay teg ci loolu rek ca la fas yéene jaar te noonu rek la fas yéene doxee du def lenn loolu um nee na mi ngi nuyu Moussa mbay mi nga xam ni doon Abdoul Aziz Mbaye di sa porte parole di ku la jege lool waaye nee na mi ngi nuyu yaayu boppam soxna Dégéen mi nga xam ni mi ngi ci kër gi waaye nee na mi ngi nuyu njaboot gi yëpp génnewu ci boppam ndax njaboot gi kat moom mi ngi ci biir te noonu nga uufee njaboot gi yëpp moom mu jiitu ci njaboot gi nga uuf nee na ñi fi àndal ñëw fii tey muy délégation bi mu fi indi waa cabinet la àndal nga damay ziare ji sama baay sama wëllëre sama soppe El Hadj Mansour kon kenn ci cabinet bi du fi des ñépp jóg ànd ak moom nee na allahuma salli ala sayyidina muhammad ñu ñaanal nag nga dund at yu bari te saa bu ñëwee fekk la fi darajay rasulullahi barkeb alhaaji malik si mi nga xam ni moom rek nga gëm moom ngay ci tëroo foo jëm wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi asalaamaaleykum ngi leen di nuyu ci sunu waajur yi toog di El Hadj Mansour di dalal ku baax ki toog jëf jëf ju rafet li ñu ci bisam bii ba fi wàcc tey me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je suis de la communication et ça ne me gêne pas. voilà jox ko yenn yi mu dee yenn yi. non non tey nii. maanaam ñu déglu tuuti. merci dem leen réagir ba seen mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ci turu sunu wuytur El Hadj Mansour Mbaye di feeñal mbégte mu rëy ci dalal koo xam ni jëfam jiitu na ko fii tey ki toog am na lu mu doon laata moo toog place bi ndono loolu la bàyyi xel ba tey mu gën a xam boppam ci taxawaayam ci biir réew mi moom ci cosaanam xam na li mu doon mu doon nag moo taxoon mu war a jàmmoog ñépp mu tel koo xam loolu mu doon moo tax fu teraangam man a àgg mu yóbbu ko fa ndax mën a jàmmoog ñëpp kër gii nag nagam ñëw na fi xaram it ñëw na fi teraangam ñëw na fi waaye yooyu yëpp mu fi indi fekk na ko fi waaye bosam dafa am lu mu àndal li bosam àndal mooy yar gi mu yaru wan ko ko moom ba pare nangul ko kii toog yàllaaj Mansour ku ko xam-xam ni socialiste waaye nag wu mag du yàq mboom moo tax ku nekk mën naa dugg ci këram boo fi ñëwee fekk fi sa bopp parce que moom bindoo noonu mu ni kii ñëw fii day tey du bis bi duguleet teraangaam gëju fi dugg fi xalaatam yaram jógu fi te as gor bu yaroo lu mu lu mu séntu mën na caa teg loxoom fii nga ñëw nag mooy këru mag olof yi nee nañu mag moo jaar ci àddina ba jàll te àddina manding la boo ci bëggee jaar foog nga wax ak mag mu mel nii moo xam fi pakk yi nekk fi rab yi génn guddi nekk mu mën laa teg yoon ba nga àgg fi nga bëgg a àgg comme yàlla nga fa yàgg beneen bi ci des gërëm ñi nga àndal ñii nag ay kanam lanu yoo xam ni seen pas-pas ak seen yaakaar lañu yeew ci yow foofu boo jógee ñu jóg heure reer ñu bàyyi ko fa jigéen bàyyi fa seeni jëkkër ñii góor bàyyi seen njaboot ñii ndaw am yaakaar wékk ko ci yow foo jóg ñu jóg kon ñii am na nu pay mi ngi leen di gërëm bu baax muy wax rek la moom Seydi Hadji Malick waxoon daf ni ku mën a teral mag teralal mag ku mën la teral mag bàyyil maalik teral mag ak nu mag mage kon teral nga jooju nga yëkkati indi ko ci moom nee na mi ngi lay seedeel ni kontaan na ci lool di rafetlu li nga def nag lu rëy la ci moom ndax ñi fiy jàll ñëpp ku ci nekk xam nga fi mu bokk te réewul nga jox ko cër bi mu jox ku yàlla jox cër na nga jox ko cër wàcc na yàlla jox cër loolu la waxoon ni bi ma ñëwee naa la ko wax seedeel la ko ci sa mbaax si sa yiw waaye ci sa xam-xam ak ci sa dugg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf Moulay def naa sunu papa la jox kàddu nag mu am mu am ay kàddu yu muy retal waaye ñuy amati mbégte nag ak kontaante bu rëy rëy damay faral di wax ni lu yàlla na mu war na lu mu eggale daa jot nee mu ngi ñu fi toog ñëpp neen di nuy doom ju baax ji di xaritam di nitu démbam nee na kër gi mu ñëw min na ko nee na këram la nee na nagam tarangaam nee na ñëw na fi ba tey nee na xarite nee na nagam fii la yeew biral xam na ci dara nee na su tabaski jotee nee na fii lay ñëw enveloppe fii lay ñëw bureau xam na ci dara nee na di mbokk démbam di nit ku yàlla baaxal nee na kontaan nag ci ñëw bi fi ñëw ndax moom nee na daraam mosu ko ëmb na kon su fi ñëwee tey ànd ak nit ñu baax ñii mu àndal nee yi fi toog miin na leen de nee na masaan di ñëw nee na ñii lay àndal nee na soppul ña daan àndal nee na ñii ñëpp ku ci nekk ñëw nga ànd ak moom def ci teraanga bu rëy nee na li mu lay Abdoul Aziz wax nag di porte parole nee doy na sëkk ñëw ci kër gi nee na li nga bëgg yàlla góor bu baax la waaye Abdoul Aziz wax na la ko léegi neen dafa jano kilifa gu baax bi ñuy wax président Abdoulaye Wade kilifa bu baax yóbbu woon ko ci moom ku ñuy wax Papa Diop ancien maire de Dakar président Wade bi mu waxee ba pare kenn ko yow kenn gënu la. réew ne ko réew mi. 15 millions d' habitants. 15 millions d' habitants. soxla. ku dul Alaaji Mansour Mbaye. ne yow mi président Wade yaay nit ku baax. ne maa ginnaaw nag. républicain la. waaye nag. Abdou Diouf. sama xarit la. sama mbokk la. Tanor. sama mbokk la sama xarit la waaye ñoom ñëpp nag maa leen njëkk ci parti socialiste je suis socialiste depuis 1945 avec le président Lamine Gueye Sessèye socialiste boobu nag ci laa bëgg dund ba dee ci nee na Abdoul Aziz wax waaye nag kii professeur Alioune Alioune Coumba Ndoffène président soo bëggee gis nit ku ba nit ku yaru nee na moo ngi nii toog yàlla yal na ko yàlla nangu Chérif ñoo ngi lay nuyu ay dara ñu jaay